am na benn mbër boo xamante sax mu ngi tuddoon euh, damay fàtte tour bi damay ki way ñew ci lamb def 5 grand combat 5 défaites amu ci benn victoire Zarko amana fa ay jamono ko na ci mbeuri ëppoon défaite ci lamb ba Zarko daw gadayou dem ci dem Espagne Modou moy tok 5 ans ñewat ci lamb daloon na fi giribor tamit dal na fi giribor dal et cetera ak yoy ñu and

mbeur yaay ñew ci lam dem am ay tolof tolof mbeur mbir mën na ko top mais papa ma dama japp ne ciat mako top ci lam bu dé beure mën na beure am fit amna doole ëpp ñuko sañ sañsé papa ñi daan ñep bu ñen gewalon ku ne mën na daan 10 fois té jël bu mu daan du bok ak ak benen bu mu la daanal kon té qu'est-ce qui se passe papa lan mako arrivé mais serigne bo wut buzz nak di fen day fen rek deful dara papa bo jeen place yalla bo tok xam nga ñom am na ñom lañ mel dañu wut buzz ci kaw ci kaw buzz jambur papa la yalla bindé non mbeur yalla parce que li suñu imam ciobare suñu borom ak ciobare nit bokku papa yalla moko jagle limu am mais bu mayu mayu nit la kon ba léegi jeex na papa mayu yalla la di daanu di stade mi fess muy beresi ni diko top muy daanu bës di am ni di gëna di gëna ciow ci papa boy jinné parce que daanu na xey dem open press alun zay de ñepp téru moy may lolu moy may bi nga yalla suñu borom may mais ko xamanteni nit mo la may au tout moment xey xey xey lolu lolu yalla suñu borom mën na koo nangu mais que yalla may day gën a tàkk rek ci àdduna Papa Boy Djiné daanaan la phénomène la ci làmb waa di ko ñaanal tam yàlla na nattu bi yem fii xam nga yi ñëw ci kanam mu nekk ay làmb yu neex a neex a neex te gëm naa ne incha allah rabi dina fi yem bàyyiwul bëree pour ñu xam ko wul bëree te bu amee combat incha allah dina ci ay mbokkam gars yi dañ ko jàppale taxawu ko parce que xale la boo xamante ni làmb da koo yaakaar. Mmh. loolu mooy loolu mooy àdduna. Mmh. loolu mooy àdduna comme ni nga ko waxee alors mbokk yi mmh. dañuy jàll ci li nga xam ne nag moo. mais dafa war a bàyyi bëre. waaw am na day fay yaa ko joxel dépense su këram. koo joxalul dépense. fay loo ko location fay loo courant bu fa bëree fajoo ko na bàyyi bëre bu bàyyi bëre ci lay jàpp waaw toll na ne mbëri am doole ah di xale boo xamante làmb da koo bëgg nga bëgg koo bàyyi loo bëre papa du bàyyi bëre day bëree te inshallah allah bi ñu ngi dox ay combat mi may wax ak yow ni hmm. waaw parce que amna promoteur yo amna wonañ ma wo laaj ma combat papa boy jinne diw ak diw ak diw comme nak euh, gaay euh, combat yi ñoragut duma am euh, du tuddu seni tour na naa dox combat papa diw ak diw ak diw mbeur ba mbër ma mun na foog sax papa da koy préparé ko wajal parce que des fois amna promoteur amna comme man ma dëkkee gëdjé way légui buñ soxla ay combat dañuy jaar ci man woo ne ma dañu soxla diw ak diw lo ci xam su nexé man leen neex bu baaxul ma ne ah baaxul xool leen parce que promoteur tamit bu jël alalam bi di ko def ci làmb yow nit ki da koy tànnal làmb ju neex làmb tamit ëllëg na ci am dara parce euh, que papa ñu war a bëreel bari na ngi ci làmb mën naa citer sax ay ay boy yu war a bëreel euh, papa booy jinne war a mën a bëreeg jeex jàmm war a mën a bëreeg fëgale bu ngor ay naaru sokaas et cetera ñeneen ak ñeneen ba ci yi nii yi fi war fee am a a bëreeg kon dèjà loolu ay ay ah daanu ak la daan ak daanu ñoo ànd ci lambu. mais mais Abou hmm. Abou est-ce que aussi tamit amul lenn lu dugg biir écurie Walo parce que boo xoolee Mathia Pereira daa daanu. Hmm. Niakhou Ndaw daanu. Hmm. Papa Boy Djiné daanu fi mu toll nii li des mooy Alioune Seye ñu xaar ko ñu mujjee tamit. est-ce que aussi nekkut nekkut euh, li nga xam ne moo di am lu xew biir écurie Walo. waaw loolu góob da day am benn dynamique ci écurie écurie bi day am benn dynamique écurie bi écurie Walo dafa fi ay jamono moo fi jëloon paysan parce que moo fi ëppoon ay victoire ci lambu Lamsar 2019 2020 Lamsar mooy xewoon ci lambu écurie Lamsar dañu ñëw écurie Waalo écurie Balla Gaye yaa ngi ko wax écurie Balla Gaye euh, bëri ay ay ay defet ci seen booy la jor daanu Balla Gaye daanu yu bëree bëree bëree daanu mais après ñu dem ba ci euh, benn actuellement écurie Balla Gaye boo xoolee bokk na jamono ji ñu ñu gën a sànni seen karawaat ca kanam Fass amoon na ko ay jamono Fass Fass ñëpp naan Fass Fass Fass Fass Fass Fass mujj gi booy di daanu di daanu di daanu di daanu ba jamono ji xoolal Fass te Fass bokk na ci écurie bu gën a baax ci ci ci ci Sénégal bokk na yor structure bu normal mhm. mais jamono ji Fass moo gën a euh, néew ay victoire ci làmb léegi jamono ji ban équipe moo gën a dox ci làmb mhm. ku ne jàmbaar pour si waaw lato waaw 100 pour cent jàmbaar jamono ji ñoo ëpp ay victoire ci làmb mhm. mbëru jàmbaar car macha allah tatuma leen ah, voilà solidarité am ak liggéey bi fa am ak mbëri mbëru jàmbaar yi jàmbaar jamono ji parcelle jamono ji làmb parcelle moo gën a téye jamono ji làmb géejawaay am na benn moment bam da koy da koy téye mais jamono ji da ko xaw a daa xaw a baissé ci côté yam Pikine problème boobu la am Pikine moo gën a bëri défaite euh, euh, ren bi waaw Pikine moo gën a bëri ay ay défaite jamono ji saison bi waaw yaa ngi comprendre la lamb noonu lay demee quoi mais jamono ji équipe bu euh, lamb ji dëkk bu ëpp ay victoire parcelle ci lamb. waa hmm, hmm. ci Abou dañuy enchaîner rapidement vite fait nga xam ne moo seet si ñaam baalo tey mais hmm. dañu fi dajeeg yow te yow yàlla may na la suñu euh, ci xam-xam hmm. euh, ci wàllu làmb am na combat yi nag suñ kanam le premier mai hmm. donc diggante Talfa ak Youssou Ndour dem nga open press Talfa waaw gis nañ Youssou euh, ak combat xam moo di Franc lan nga ñuy ci combat noonu Talfa bu bëggee daan Youssou Ndour bu may Youssou Ndur xalaat bu ko may temps Talfa kan il faut mu beure ay Youssou Ndour bëre bu rapidité beure bu gaaw yaa ngi dégg Talfa kan dama am ben poids bu ma gis ci mom pour ma teel ko wax mais xawma nak dama ko coach sam entraîneuram mais damay analyse rek mais man poids bi Talfa yor arrangé wuma ma dafa oeuf ci man quoi waaw Youssou Ndour kay war warta bëre nga nga oeuf tollu Mor Kang Kang limi meuna meuna beure dafa ñew Youssou Ndour sàcc ko dole gën ko 10 am dole ak 10 bokkut te mbër bu 10 pour nga manipuler ko day jafé man suma sañon sañoon day 10 touti mais nag euh, dèjà ku euh, kii na c' est trop tard na parce que euh, mercredi mooy lamb ji Talfaas diggante Talfaas diggante mënu cee diis kon boog ci ci poids bi mu yor na ñëw fexe kon manœuvre Youssou Ndour manipuler ko agression boo mi def mu def agression Youssou Ndour fekk ji ko fa Talfa bu mu nangu Youssou Ndour njëkk koo jàpp Talfa dama koy moytoo ñaari ci Youssou Ndour Talfa bu ko Youssou Ndour njëkkee jàpp mën na am problème Talfa bu bëre bi gaaw mën na am problème ci Youssou Ndour parce que Talfa xamul Youssou ça je m'accorde xamul Youssou Ndour waaw xamul ah. parce que est ce que c' est bu bu xamee Youssou Ndour bu dee xam na Youssou bu dee moom xam na Youssou Ndour kon ñu ko préparé xamuñu Youssou Ndour fii laa koy waxee parce que li may wax ne euh, ci télé laay waxee am na ñu ngi parce que après lamb ah, parce que euh, Ndour dama koo seetaan dama koo seetaan moog ñagas ma seetaan Youssou Ndour jën kayre bu ko jën kayre di daan ma seetaan Youssou Ndour caatu yoof ma setan yu sundur Youssou sundur ko setan. setan setan setan top ko nak diko dan and ak mom ci mbapat di muy beure mm-hmm. muy xalé ne Talfa parce que ñaari xalé lañu pare nek doomu lamp pare lamp, doomu lamb pare lamb ubbeeku ci cotem donc nak Talfa jamono ji la lamp gëna soxla Talfa amna ciow lamp Talfa mo upp jappalé ci lamp bare jappalé rek Talfa mo upp yu sundur yaay ngi comprendre mais mu ngi beure ko xamanteni ni yu sunduru ci loko ko la ci mëna fekk ci mm-hmm. bëre bi ñu Talfa di bëre daa ko Youssou Ndour Talfa bu dee ci bëre la la la teg combat bi daa ko Youssou Ndour bu dee ci xeex daa ko Youssou Ndour kon boobu bëre bi fan la ca xam-xam ba la bopp vivacité rapidité gën a gaaw. Talfa ban chance la am ci combat bi. en kay Talfa bu ñu koy jàpp Youssou Ndour ba bopp bi jàll lu koy mën na ko bëtt jarka di ko mu fax ko Talfa lu mu jàpp nag moo ko moom nag de waaw yàlla may na ko loolu te Talfa bërëm bu jeex. di nga lim nan gamer gamer deug la day game mhm. talfa gamer la mhm. parce que limi def moy game deug mhm. parce que ñëw tey sa téléphone bi tay ba bu ko nangu wala may gi jihad may jale sama bakkan ngay xex ñuy beure di dóorante ba ba foxati téléphone lool moy game effectivement limi wote deug la ci mom talfa day game gamer la ci lambu lool lool nako sen seen nangul lool nako lambu nangul nangu ne talfa mooy gameru lambu parce que dafa ñëw woné ko amna na benn bu ko beure ci lambu na mama Lamine Maama Lamine ak Tafa ñoo ngi xaw a duróo bëre ak Youssou Ndour ñoom ñett ñoo duróo bëre mais Youssou Ndour basam dafa diig maanaam dafa diis tuuti mais Youssou dafa soxor buy dóor day maat yaa ngi ko balaan mais day bëre koo xamante ne tey dañ ko pulvérisé ci làmb ni tuut na perturbé mu daan la jël bu rëy Talfa waaw waaw dañ ko pulvérisé ci làmb de coow lamb da koo topp de mm-hmm. te moytu ma mbir am coow lamb te nante duñ topp ngaaga mm-hmm. topp ko ba pare roi des arènes ngi ci ginnaaw te dama seetaan euh, talfa ak pël ku bëgg xam talfa nu mel dama xool combat ak jaasi pël moo xoolal Tapha Mbeur ci Madiol Kessel ngir so suus. ayca ba tey ci journée le premier mai bobu nonu mhm. gis nañ combat bi nga xamne mom le la Sénégal yëpp di xaar digënde mhm. Franc jago Or. ak ki nga xamne mo ber 52 bu mu B52. Reug Reug la mayon sens. Reug Reug dan mu ñëwaat talalat loxo benen xalé di Franc te ñoom Reug Reug ak Franc. ñoo mhm. bok fiñ ñu pro di mbapat lañ. waaw eh, est-ce que du combat pièce encore ci boy ci eh, ci ki nga xam ne di B52. bo combat bi nak bu ma jël fa bëgg combat bi waaw dafa bëri ak Reug Reug Reug Reug daan ko ci daa coach. loolu moo ko metti mu jël Franc ko ci yaa comprendre est-ce que Bombardier dina nang confirmation boobu am ci làmb Franc na ci droit Bombardier bu ko dalee làmbam yàqu bëri bi mu bëri daan Bombardier naa xam boobu ñu def dafa dëbb la bal kooku amutee Bombardier mënoo koo naax te Franc boo jàppee ngëmam du bëre na sóor ñaari yooyu noonu Bombardier kenn mënu koo naax bëri bi na assuré nag nee fu eh, Franc tey eh, njaago bi dalee sa kaw xam ne na sa kaw. Franc ni Bombardier vingt secondes may. vingt secondes laa la may kenn du ko may ay secondes laay Balla Gaye du <laughs> gi ñëw <laughs> jël leen ñang baalo ñang baalo gi ñëw jël leen ko. <laughs>